Cheikh Mouhamadul Mountakha ci turu mboolem waa daara Hizbu Tarxiya ak turu mbooleem sunu bokki dongo yi noo ngi lay nuyu di la ziar di la sant noo ngi nuyu sa mbokki bopp yi tedd yii nga xam ne ñooy njabootu Sëñ Tuubaa gi su ma ci tuddee Cheikh Mouhamadul Bachir ibnu Cheikh Abdul Xaadir mi nga xam ne moo yor sa kàddu ak kilifa yu tëdd yi nga xamante ne ñoom ñëpp njabootu sëñ Tuubaa lañ ku ma ci tuddoon rek sax day doy dinañ yóbbaale lañu ci des noonu ngi nuyu itam kilifa yoon yi nga xam ne ñooy njabootu seex yi seex yi Tuubaa yi ndax maase nañ ci xam ne Hizbut Tarqiyyah seen alal la ndax yaa ñu tuddee woon soldaaru yoonu murit te xam nañ ne soldaar moom ñëpp a ko bokk noo ngi beral itam ab nuyoo waa Touba. ak bokki jullit yi ak bokki taalibe yi fu ñu fi mën a nekk ci biir réew mi ak bitim réew ak bokk yi xarit yi am di jàmm yi di leen sant leen gërëm ndax ku fi teewul itam sa yéene teewal na la fi bisub tey bii nag Mbakke bisub tan sant la ci nun boo xam ne dara fi tew ko kaw cant gi nag li ko sabab mooy ñaan gu nangu gu nu yëg ci suñu xol ak aajo ju faju te loolu yow yow mbakke mbàkke yaa nu ko fàggul yow la sa ñaan nangu nga yóbbaale nu yóbbaale ndongo yëpp yóbbaale lislaam yëpp bu ñu ko xoolee ci li nu gën a jege yaa digle woon daaw ci lu war a tollook at ne ne na njabootu Hizbut Tarqiyyah gépp doon benn bi nga koy def danga cee teg ne Hizbut Tarqiyyah benn la mën a doon wax itam ne dama ko seet ba xam ne ànd gi mën naa am ma soog koo digle li nga ci itam ne dëële ne mbooloo mi dina gën a am doole liggéey bi dina gën a taaru te dinañ ci dajeeg ngërëmal Sëriñ Tuubaa loolu nag Mbàkke fa saasa lañu xam ne soobu ci ndigal li fas ko yéene def sunu kem kàttan moo ci sunu wàll ndax am na loo xam ne doomu aadama mënu ko yàlla sunu boroom moo ko mën a gàttandu defal ko ci tawféex kon lii xéewal la gu réy goo xam ne defaluñ ko suñ bopp loolu xam nañ ko bu wér pàggutéefu Sëriñ Tuubaa la boo xam ne soob na yàlla mu defal ko ko te yow mii la ko teg ci sa loxo euh, lii moo waral bi sa kàddu daanoo xol yëpp nangu maase ci nangu ko dong yëpp itam am ci dalum xel am ci mbégte akuk cant looloo waral ñu bari ci mbooloo mi waajuñu xaaruñu dañoo dikk fi saa si ànd ak ñun ñu soobu ci liggéey bi lii lépp nag Mbàkke li ko yombal ci yow mii la nekk ndax ku xool ci say jikko xool ci say melo yu tedd yii xool ni ngay wommatee dong yi jëme leen ci bëgg lu baax bañ lu bon wan ginnaaw àdduna jublu Serigne Touba ak xemmeem loo leen ngërëmal Serigne Touba gi nga xam ne muy ngërëmal yàlla te ngërëmal yàlla moo dàq àjjana ni ko alquran waxee wa ridwanun min allahi akbaru dalika huwa alfawzu alazim ci sóoratu taw lii lépp nag day wane ne ah, xool ci yow rekk dar ku xool ci yow dara dootu ko gàllankoor te it loolu mooy rafetal itam doxin wi sunu cant nag mbàkke suñu diggante yow dañu cee xeeb sunu bopp xeeb ci sunu kàddu loolu moo waral ñu jël ci kuréelu xaside yi lu tollook junniy nit jox leen fukki way ak ñaar yu ñu jukkee ci xaside yi sëñ Tuubaa yi ñu jàng ko léegi dañ ciy feeñal feeñal ci sunu cant ñaanal la nga yàgg fi te wér mottali sa mbébét yépp ci toolub sëñ Tubaa sëñ Ablaye Diop dikk ci loolu ba noppi ma door a àggali waxtaan wi. أكرم بها كريم نعم المقيم لك المعجزات الخر يا خير سيد عليك صلاة الله يا جاي kon fukki way yi ñu jukkee ci xasida Mawaahibu Naafi ak ñaari way yi ñu ñu ko tëjee jële ko ci xasida am Amdah dañu ci gis taxawaay boo xam ne sëb cër la di pàgguteefu Sëriñ Tuubaa boo xam ne bokk na ci say jagle laqad laqad mu lakal mu'jizatul ghurru yaa xayra sayyidin alayka salaatullaahi yaa jaamiha chamli laqad kunta sabaran shakuran wa naasixan aleyka salaamullahi yaa maahiyal jahl lii nag Mbàkke raaya lislaam la joo xam ne yëkkati gu ko ba mu kawe àdduna sépp di ko gis te ndam lu yoonu murit am lii moo ko ko may ku la xam xam la ci muñ ku la xam xam la ci sant sa borom ku la xam xam ci sax ci liggéeyal Sëñ Tuubaa ku la xam xam na ci gindi nit ñi di leen dimbali di leen laabire looloo waral itam ñëpp nangul la Mbàkke jërëjëf dellusiwaat nañu tey ngir yeesalaat sunu jaayante ci yow di la jébbalaat sunuy jëmm ak sunuy alal di xamal àdduna sépp ne nosuk Hizbut Tarqiyyah nosuk Hizbut Tarqiyyah ak baat bi ci sa loxo la nekk te seexoo ko kenn ndax alali Sëñ Tuubaa la te yaa ko fi nekk fas nañu waaw nee na dañuy teewlu fu waay nekk rek du sax mu du soxla muy soppi ni mu taxawee du soxla ni mu toog soppi ni mu toogee foofee lay taxaw sëñ bi jiite ñu ñu mën a barkeelu julli dellu si waat àggale liggéey bi jërëjëf sëñ bi moo joxe ndigal loolu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 ñaanal la li nga yóotu lépp ci toolu Sëñ Tuubaa nga àggale ko jërëjëf Mbàkke li mooy kàddu